Yayoo, yayoo, lan mooy nit sama yaay leeral ma naa ko dégg naa ko mësuma ko gis sama yaay leeral ma yayoo, yayoo, lan mooy nit sama yaay leeral ma naa ko niet bang.